asalaamaaleykum suñu mbokki internet yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen jaajëfal di am contentement ak mbégte comme niñ ko safoo di ko defee di leen dalal sur la chaîne leader Dakar People tey nag amoon nañ contentement ak mbégte beneen yoon dalalaat fii ku ngeen ràññee ku ngeen xam muy la grande voyante ñu gën ko xam si soxna Abibatou Gaye soxna Abibatou Gaye nuyu nañ la. waaw asalaamaaleykum wa rahmatulah waa Dakar maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp seen sant macha di am contentement lool sen ñëwaat fii maa ngi leen di ziar di nuyu waa àdduna di nuyu kilifa diine di nuyu kilifa aade di nuyu samay waajur sama borom kër di déwénati ñëpp di baalu àq ñëpp di baalu àq ñëpp di leen ne soxna Abibatu seen xarit seen Abibatu ñu ngi lay nuyu daanaka comme ni ko faral di ko defee saa su ñu ñëw pour am yow waxtaan. laaj ak tontu waxtaanee ci wàllu liggéey bi waxtaanee tamit soxna Abibatou Gaye tuuti ndaxte fan yi ñu weesu dañu gis ni soxna Abibatou daanaka dañ ko gëj a gis te daanaka soxna Abibatou nekk na jëmm bi nga xam ne soppee nit yi la rawatina waa diaspora bi donc yaakaar naa buñ la gëj gis rek seen xel day xaw a dem fu sori ndaxte cofeel bi dox seen diggante tey jii est-ce que mën nga moo wax ci tënk rek lan moo waral gëj gise bi soxna Abibatou. waa sama soppe gëj gise bi du dara ndax àdduna moom yaakaar naa ne jot amul liggéey bi rek la du ma seet toujours damay wax loolu sama jot mayuma toujours ma nekk ci internet yi wala ne parce que aw ma jot liggéey bi rek la dama toogoon sama rukk di liggéey waaye du dara naa si jàmm ak salaam. Mm. alhamdulilah on daanaka suñu émission ak yow daanaka suñ la gëjee gis rek internet mbokki internet yi dañuy faral di ñu envoyé ay message di ñu woo di wax lu waral soxna Habibatou génn rawatina waa diaspora bi dañu gis ni. si ñi ëpp à chaque fois suñu mbokki audience yi nga xam ne tey jii buñ la gëjee gis ñooy faral di ñu woo dañuy raw dañu gis ni que ñu si ëpp boo xoolee tey jii quatre-vingt-dix pour cent bi waa diaspora bi la sa soxna bi batu la ba tey jii cofeel boobu am seen diggante waa alhamdulilahi rabbil ma koy wax diaspora bi nee naa leen samay xarit lañu samay doomu ndey lañu macha allah ñu sopp ma lool sax man waa diaspora bi ma seen fay maa ngi leen di sant di leen gërëm toujours dama naan am naa fa ay yaay am naa fa ay doom am naa fa ay mag am naa fa ay rakk nee naa la tamit nit booy ànd ak moom ci dëgg gis nga dëgg dafa nekk loo xam ne mooy njëkk te moom mooy mujj mbëggeel bi rek dëgg la dama ànd ak ñoom ci dëgg dama leen a yërëm dama gis lu ñuy coono bu ñuy daj daal dama leen jàppee comme sama bopp di leen massawu di nekk nag ñoom nekkin bu rafet daal macha allah ñu woolu ma lool lépp luñ ma wóoloo ci man la ndax nee naa la képp ku ma yónnee sax alal ne ma soxna Abibatu damaa bëgg nga defal ma sarax dama lay vidéowal ba mu leer bu ma la wee ba mu leer ma yónnee la ndax àdduna bi dafa wóorul daal àdduna bi dafa ja dafa dafa neexatul daal man ñoom daal ay doomi ndey lañ ay xarit lañu macha allah tuddee nañ ma si ay doom naa la ko man nañ ma njëkkee lu ne diaspora bi defal nañ ma ko maa ngi leen di sant di leen gërëm ne leen du dara maa ngi si jàmm ak salaam dama nekkoon sama rukk rek liggéey. macha allah soxna Abibatu leer li am na solo trop kàddu yi am na solo trop. daanaka bu ma paree ci loolu dama bëgg ñëwaat tuuti ci soxna Abi Batu digganteem ak seet ndaxte tey jii képp ko xam jëmm ji képp ko mës a jëflanteel rek ci mbiru seet daanaka mun nañ ne tey jii xataa loo ko ci wax du deñ say sarax tamit nekk tey jii li nga xam ne du laal suuf koo seetal digal ko ay sarax yaakaar naa bu ko respecté rek lépp li ngeen waxante woon sunu borom da ciy def saafara ba ñu gis ko tey jii lan moo lan mooy sa diggante ak seet soxna Abi Batu tey jii ba suñu borom may la ci loxo bu gudd gudd macha allah. waaw macha allah alhamdulilah rabbil alamin dafa nekk loo xam ne dama ko mën dafa nekk loo xam ne seet ndono la àdduna danaa nit dañu naan loo ndond bu dëgër dama ko dond sama wàllu yaay macha allah bëgg ko lool jàngaat ndax nit boo dondee ba pare dem waat macha allah yàlla dala siy def barkel ma ma macha allah yàlla ubbil ma ci lool ba lu ma wax doomu aadama rek man toujours dama koy faral di wax ci samay émission mm. nee naa leen képp ku seet si soxna Abi Batu jarul ngay dem sëriñ man samay sarax moo gën a gaaw sëriñ bu ma la defaree sarax rek nga respecté ma la wax bu soobee yàlla ak yonent bi dangay def léegi gis léegi macha allah yàlla may na ma lool ci wàllu seet macha allah maa ngi koy sant maa ngi koy gërëm toujours fu ma toog dama koy wax nee naa leen samay sarax te bëri naa si ñoo xam ne bu fekkoon dañoo ubbi woon antenne bi kon ñi woote dinañ bëri trop macha allah samay sarax moo gën a gaaw ñaan fuuf sax bokkul sax alhamdulilahi rabil alamin maa ngi sant yàlla loolu bu baax. macha allah soxna Abi Batu leer am na solo trop daanaka loolu comme ni nga ko waxee léegi bu ñu ubbi woon antenne bi mu nekkoon émission direct yaakaar naa seede yi dina bëri ñu bëri dinañ woote firndeel diggante bi nga xam ne moom la soxna Abi Batu am ak seet ak ndey ak tey tey jii li nga xam ne mooy wàllu sarax. mais tamit dañuy gis ni soxna Abi Batu ñu bëri dañuy daanaka da nga leen di seetal defal leen ay sarax ñu gis mbir ba pare wëlbatiku waat des fois ñëw di la wax dañu bëgg mbirum ñaan yàlla la moo tax doo yëngatu si mbirum ñaan affaire yooyu noonu. non sama xarit àdduna nit da ngay honnête man bëgguma nit ku honnêtul parce que lépp loo wax àdduna rek da nga koy wax si àllaaxira du ma ne nit ki dama lay ñaanal te mënuma ko. yàlla bi dogalul loolu si man nekkuma ñaankat mënuma ñaan xaw ma du ñuy ñaanee lépp lu may wax day leer lépp lu may digganteeg doomu aadama tamit day leer ndax dama bëgg boo ma waxee ma wax la mënuma ma ñaan toujours dama naan bis bu ma la seetalee ba génne sarax rek bu yeboo nga def sarax yi xam ne samay sarax moo gën a gaaw ñaan mhm. macha allah macha allah yàlla may na ma loolu trop trop trop trop mais wàllu ñaan mënuma ko. mooy secret bi soxna Abibatou secret bi secret bi nga xam ne tey jii biir ak biti réew mi rawatina diaspora sax daanaka yow moom sa diggante ak diaspora bi kenn dootu ko lam-laamee ba tey jii képp koo jëflanteel ci mbiru seet ak sarax loolu daanaka mbiram yi bu tëj woon mun nañ nee day ibbeeku lépp lu mu jëgmal mu antu lan mooy lan mooy secret bi soxna Abiba tey jii bu ñu doon wax rek tënk soxna Abibatu lu mu làmboo lan la. non secret du dara lu dëggu rek secret du dara dul dëggu secret bi du dara lu liggéey sox secret du dara lu li may def dama ko bëgg macha allah dama ci bëgg dama ci am yërmande lool sax man soxla nit ñi ñoo ma gënal sama soxla bopp nit ki boo ñëwee ci man ak problème boo mënti nekk dinaa la dalal dinaa waxtaan ak yow dinaa kafanteeg yow dinaa reetaananteeg yow macha allah dina la seetal ba bépp problème boo amoon danga koy fàtte. dinaa la génnal say sarax macha allah te sarax bu ma la defal yàlla mu ma may jàppale bu baax a baax a baax alhamdulilahi rabbil alamin maa ngi sant yàlla sant yonent bi sant sama yaay gë ak Serigne Babacar Sy ndax moom moom ma dooleel. macha allah macha allah alhamdulilahi rabbil alamin sarax moom samay sarax gaaw na trop sax gaaw na trop macha allah sant yàlla. macha allah soxnaa bi batu leeral yi am na solo trop kàddu yi am na solo trop daanaka sa digganteeg seet sa digganteeg sarax doonaka kenn dootu ko laablaame mais tamit bëgg naa tuuti nga ñëw wax ma tamit tuuti si kóllëre bi nga xam ne tey jii yaa ngi koy am ak kilifa yi daanaka am na am na fekk léegi sax jaru ñuy tudd turam ndaxte daanaka kilifa yi bëri na kilifa yi nga xam ne ci biir réew mi yaa ngi jëflanteeg ñoom lan moo waral kóllëre boobu noonu. waa sant yàlla alhamdulilah rabbil alamin sama diggante kilifa yaakaar naa macha allah lu tax ñu daw si di ñëw si soxna Abibatu man maa leen ko wan ndax yaakaar naa kilifa ay caaxaan fu mu nekk du fa dëgg tànkam macha allah dëggu la ñu gis si man fulla la ñu gis si man sutura la ñu gis si man dew ma fenn maa ngi toog sama kër liggéey sama liggéey kenn dégguma ci ayu ñàkk fayda kenn gisuma si we ñàkk fayda macha allah sant naa yàlla yaakaar naa loolu moo tax kilifa yu bëri macha allah dañuy jublu si soxna Abibatu sant yàlla bu baax alhamdulilah. macha allah soxna Abibatu leer li am na solo trop. ñu bëri tamit dañuy faral di wax que ni soxna Abi Batu ay duggam ay génnam bëriwul yaakaar naa bëri na si ay tey ji télé yu mag a mag ak ay presse en ligne yoo xam ne ni dañ lay démarché surtout rawatina mbiru wàllu télévision yi nga xam ne tey ji ñu ngi ñëw comme daanaka ñu ngi koy gisee yenn voyante yi ñuy toog ci rajo yi di kii la moo tax buñ la gisee duñ la gis ci yooyu soxna Abi Batu. soxna Abi dafa nekk nit koo xam ne macha allah jotam bëriwul. man sama jot bëriwul macha allah bu ma xëyee suba ba ngoon sama yëfu bopp laay nekk sama liggéey laay nekk kon yaakaar naa nit ku mel noonu doo am jot dama nekk nit koo xam ne macha allah timit dama néewi wax samay wax bëriwul man daal ci fullaak fayda rek laay dox dama gàtt tànk macha allah dama amul jot daal loolu moo tax sama jot bëriwul moo tax duñ ma gis fenn foo ma fekk maa sama rokk liggéey sama liggéey loolu rek la mais du dara. macha allah leer li am na solo trop buñ paree ci loolu tamit soxna Habibatou ñëpp xam nañ ni voyante nga te voyante yi mbiru voyante dafa commencé nekk li nga xam ne dafa commencé bëri ci biir réew mi rawatina soxna yi nga xam ne tey ji ñoo ci yëngatu la moo tax dañu faral di gis ñu si bëri dañuy génn di wax di wax ay diw day def lii diw day dee diw day def lii nii kii day daan su ko su làmb jutee scandale ay élection kii day falu kii day lu tax duñ la gis yooyu soxna ay bateau ah macha allah xam naa ñooñu seen bëgg-bëgg rek la xam nga àdduna moom nit ku nekk ak ni ngay gisee àdduna nit ku nekk ak ni ngay doxalee soxna Abibatu toujours dama la koy wax nee naa la man dama nekk nit koo xam ne dama màndu trop man yëfi jàmbur sama yoon nekk si lii xew ak lu xew wax dëgg yàlla man du ma nekk naan ku nekk ma nekk fa di wax di génn si internet yi di wax peut-être ñi koy def seen kii rek la seen abi rek la. yooyu buy faral di xew est-ce que genre dang nga ci ci am lu la ci suñu borom won yow yaay da nga da nga ciy def ay da nga ci da nga ci taxaw def ay taxaw seetlu def ci ay gëstu ba yàlla won la ci dara wala wala yow tey jii yow doo si yëngatu wala tey jii bu yow yaay xam ba pare toog bañ a wax. ah damay xam kay macha allah ndax damay gis damay tëdd guddi ñu may wan macha allah damay gis mais sama yoon da ci nekk du ma nekk di génn di wax lii wala may génn di wax laa ah, soxna Abibatu daal mu ngi suru bëgg xam bis boo ñëwee sama kër ma dinaa la wax mais sama temps permettre ma sama sama jëmm macha allah permettre ma lu génn ma wax lu jot ma wax melu ma noonu. macha allah soxna Abibatu waxtaan bi am na solo trop kàddu yi am na solo trop dénkaane am na solo trop mais daanaka waxtu nekk na li nga xam ne daf la tënk. sa jot bëriwul xam naa du ñu abuser tuuti du ñu abuser ci waxtu bi nga xam ne tey ji opportunité bi ñu mayaat beneen yoon pour ñu ñëw amal ak émission am ak yow émission xam naa du ñu def lu dul ñëw bàyyi la nga tàggatoog suñu mbokki internet yi tàggoog soppi yi nga xam ne namoon nañ soxna ay batu soxna ay batu lan ngay tàggatoo. waa alhamdulilahi rabbil alamin comme émission bi yàlla suñu borom def nañu commencé ko ci bismillahi rahmaani rahim ñu si génn alhamdulilahi rabbil alamin maa ngi gërëm sama waajur bu góor di gërëm samay waajur yu jigéen macha allah ndax lu ma mun ñoom la di gërëm sama borom kër bi nga xam ne macha allah daf ma jàppale lool dooleel ma macha allah maa koy gërëm di ko sant di gërëm samay client di nekk biir réew ak bitim réew macha allah surtout waa bitim réew man toujours dama naan waa bitim réew aw ma seen fay toujours damay taxaw di naan man xaw ma ñii fan lan laa leen war a fay. ndax mbëggeel buñ ma bëgg macha allah sama téléphone bi suba ak ngoon dañuy sone soxna abatu lan la soxna abatu génneel wax soxna abatu namoon nañ la soxna abatu lii mais lépp maa ngi si jàmm maa ngi si salaam ne woon ne leen dama nekkoon sama rukk rek mais génnaat naa maa ngi ñaan tamit Sénégal yàlla def fi jàmm ci barke Seydina Muhammad kilifa diine yàlla bàyyi leen suñu kanam ci barke salaatul fatiha ñu gunge ñu ba ci kanam ak kanam kilifa aaday timit noonu macha allah maa ngi ñaan yàlla daal Sénégal am jàmm yéen ñi tamit maa ngi leen di gërëm maa ngi leen di ñaanal yàlla def leen macha allah ay mag ñu am ñam di ñaanal xale di ñaanal mboolem jur yàlla Sénégal am jàmm parce que yonent bi